Euh, xanaa ginnaaw bu ñu sant yàlla rek di nuyu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, kontaan si loolu rek parce que nit moom amul dara lu dul dëkkam quoi waaw euh, vraiment loolu noonu daal initiative bu baax la quoi te gëm nañ ne tamit bu amee dinañ ko si jàppale ba mu xam ne foofu carrément ñun jóg nañ pour jàppale suñu dëkk quoi. waaw donc ñu ngi siy kontaan bu baax a baax daal di ko encourager quoi di ko ñaanal yàlla tamit lépp lu mu ciy séntu daal yàlla matal ko quoi si jàmm ak salaam. waaw parce que boo xoolee tey euh, nekk jóge fële bitim réew quoi ñëw di liggéey suñu réew ñuy génnee suñu alal di ko si def ko muy delluwaat foofu noonu ñu benn intérêt quoi kon par exemple bi ñu gisee koo xam ne war nañoo mën a jàppale si loolu noonu liggéey ngir def suñu biir réew dañ siy ànd ak moom quoi jàppale ko si gëm ko xam ñun ñëpp ñu jàpp si ko bu ko defee daal ñu am li ñu bëgg incha allah waaw. kon li a wax Sénégalais comme que suñu mbokku murid la kon ñun ñëpp dañ ko war a taxaw pour jàppale ko. parce que Orange comme ni nga ko waxee ak Tigo yu bari parce que sénégalais moomu ko comme que suñu mbokk sénégalais bu bu amee benn kii rek maanaam bu amee benn euh, kii bi bu bu bu mu kii rek dañ ko ci war a jàpp lu ñu nit bëgg promotion bi jëm sa kanam waaw xam nga si sénégalais la suñu mbokk sénégalais la taalibi suñu Tuubaa la tay askanu yëpp la fi nekkal war a nekk ci euh, Masaalikul Jinaan rek taxawaay bi fi amee taxawaay bi fi taxaw rek ak liggéey bi ko liggéey mucc ayib ba dina sépp teg seen bët loolu rek daanaka ak cant la waaw lii daal wax dëgg yàlla ñu ngi ci woo daal ñëpp daal surtout mbokk taalibe ak mbokk ñu bokkal Seexul Xadim ñii lañ ci woo ñëpp ñuy duggu ci dugg si maanaam balaa màgg ñu junni wecc ñu ñu murid yëpp fexe am ci si siyaar mbokk taalibe yëpp ak si

parce que nag toll toll nañ foo xam ne ñun suñu Sénégal dañu war a ressusciter wu suñu bopp créer conférence concurrence entre la puce orange quoi parce que la puce orange il couvre le crédit chaque jour il ngi leb di crédit bi Macky Sall li mu ñu loolu xéwal la quoi wala xéwal la xéwal la parce que bu fekkee ñëw na ci jàmm ak salaam teg ko ci ay tarif yoo xam ne baax na yoo xam ne sénégalais yëpp nañ ci gis seen bopp loolu xéwal la waaw. asalaamaaleykum kontaan nañ di ci rafetlu bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla. sonn nañ ci orange sonn nañ ci Tigo ndax crédit boo yor ñu jël jooy nañ ko fu nekk nag kon euh, Bakiyu Faye bu ñëwee lu mel noonu nekk taalibe nekk dañ ci fier nekk. waaw waaw waaw. yow mooy xaalis ñoo dee dara bi sax xamul la yéen yow boobu la sax si sax loolu mooy xaalis bi nga fi def sa lay affecté na si sa bopp quoi loo xam moom sa la gàlle ko moom loolu ko amee ak loolu ko amee defal lépp sa ko amee pour Sénégal yi si seen bopp quoi